jot point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi jottali point net ay xibaar yu wóor ay journaliste yu mën seen liggéey jotali.net vous êtes au cœur de l'info. dali ñu ànd xëy yër kaay ñu xëyandoo yéen i di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa professeur Ndiak Fall xelam màcc yi jëm ci wàllum yoon mu doon jàngale lu jëm ci wàllum droit pénal wax na ci lu jëm ci Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu ko génn ci liste électorale yi moom professeur Ndiak Fall ci biir journal bi nee na Ousmane mi ñu génn ci liste électorale yi loolee tegiwul fenn maanaam lu illégal la nee loolee du yoon moom professeur contimence bi ñu ko attee ba pare bëgg ko génn ci liste électorale yi ndax Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko attee ci wàllum contumace bis ba ñu ko tegee loxo la mbir mi daal di jeex la atte ba nërmeelu dañu ko war a atte waata loolu la professeur Ndiak Fall wax nee mbiri Ousmane Sonko lenn moo ci sës jamono ji maanaam ñu atte wat ko ndax nee na Ousmane Sonko dañu ko atte ci lu jëm ci wàllum contumace te nag wàllum contumace buñ la ci attee ba pare ko jàpp maanaam ba ñu ko jàppee rek yéen kaay gi di vox populi ñu xëy fekk fa professeur Ndiak Fall mu mel ni luy jàngale Ismaïla Madior Fall lu jëm ci wàllum yoon li Ismaïla Madior Fall wax ci lu jëm ci liste électorale yi ñu génne Ousmane Sonko ak wàllum contumace bi loole professeur Ndiak Fall daf ko weddi ba pare andil kay article yéen kaay gi di source xëy duñu xibaar naan ñu am na ñetti farano yu Ousmane yoo xam ne teg nañu leen loxo section de recherche ñoo leen jàpp démb loxo maanaam réeroo wuñu ak Nafissatou Guèye mi nga xam ne dañu koy tuumaal lu jëm ci wàllum financé ay ndaw ngir nag ñu daal defar ay cocktail molotov yéen kay gi de Les Échos xëy duñu ñu Lat Diop mi jiite de service ak yi élection yi tey mu ñëw waa Karim Wade moom ndax dina ñëw wala Karim Wade du ñëw loole mooy laaj bi nga xam ne jamono ji bëri na ñoo xam ne ñoo koy laaj waaye nag journal bi de La nee na en découragé ci yéex a ñëw Karim Wade yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu ma ngi woon ca diwaanu Tiwaawan doon fa xibaar naan ñu ma ngi woon ca diwaanu Tiwaawan ci wisit bi nga xam ne moom la baaxoo amal at mu jot bu gàmmu di ñëw journal bi nee na wisitu Macky Sall boobee saf na sàpp lu jëm ci wàllum campagne électorale yéen gi di leen seko na ko waxal wax ji nee na Macky dafa demoon ca diwaanu Tiwaawan ngir nag campagnal ki nga xam ne mooy Amadou Ba yéen gi di laas nee na tàggatoo bi nga xam ne Macky Sall moom la doon def Jamil da doon jooy yéene kaay gi délibération ñu xëy fekk fa Serigne Babacar Sy Mansour nee na jamono ji mën naa wax Amadou Ba futur président yéene kaay gi di antenne quotidien xëy di xibaar naan ñu Macky Sall en tant que président def na ay visitam yu mujj fi nga xam ne mooy Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba yéene kaay gi de la Tribune nee na en tout cas li am ba de Sall Macky Sall visité ay kër kilifa diine waaye bàyyi na tamit ay kër kilifa diine ñoo xam ne Macky Sall da leen a zappé ndax famille jigéen Macky Sall demu fa Khadim Lo jàppe lan moo xew ak ndax dafa am lu dox seen diggante loole la journal bi de la xëy di ko xibaara ndax nee na Macky dafa dem ci ay kër kilifa diine am yenn kër kilifa diine yoo xam ne dañu leen a zappe dañu leen a bedde yéene kaay gi de la Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Mohamed Boun Abdallah Dionne jéngu na ngir bokk ci élection présidentielle 2024 li koy firnde la mooy Mohamed Dionne démissionné na ci BICIS ndax moo nekkoon PCA ba xibaar nañu Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne seenug ànd jamono ji ma ngi gën di leer yéenekaay gi di la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu batalo Joola bi mu suuxee ak tey toll na ci ñaar fukki at ak benn yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu bëri na ay sénégalais yoo xam ne jamono ji dañoo torox ba ne tootoo ndax njëg yi jamono ji ba léegi dafa yokk yéenekaay gi nee na dund gi metti na ba foo ko waaye natt daan na koy passé sénégalais jamono ji maanaam yokku njëg yi nga xam ne moom la ñuy dundee jamono ji askan wi ñoo ngi koy dékkoo ñoo ngi koy supporté Mor Gassama dib économiste nee na bu Sénégal moo war a xoolaat politique bi nga xam ne moom lay def ci lu jëm ci wàllum subvention yéene kaay gi de Libération xëy duñu xibaar musiba gu doy war goo xam ne moo xew ci diwaanu Jurbel journal bi nee na benn jakartamaan bu tudd Mbay Jaxate am lu toll si ñaar fukki at ak ñett la ñu rey Jurbel yéene kaay gi nee na Samba yi dañu ko piégé dañu ko tegal ay ndëgg sërëx jël ko yóbbu ko ba sa àll ba daal di koy jàmbatee ay paaka ba mu ñàkk bakkanam ñu jël am motoom daal di yóbboo dañoo sàcc moto ba yéene kaay gi nee na bërki déem moo njaaye lu mel nii timit xew na ci diwaanu Mbàkke ab jakartamaan bu tudd Biram Gise Cissé moom tim noonu la ñu ko def ay samba boy ñoo ko jël daal di koy faata jël moto ba yóbbu. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng-tàng bi Jotali point net ay xibaar yu wóor ay journalistes yu mën seen liggéey Jotali